ngi ñëw teewal fii le commissaire spécial de Touba ñoo woon fekkee ci ndaje bii di comité local de développement ñu ne jagleel ko màggalu Touba màggalu Touba nag nekk màggal goo xam ne bu am am dee la ci wàllu réew meeg bitim réew euh, loolu moo waral police dina jël matukaay yëpp yi nga xam ni yu mu faral di jël comme at yi weesu yëpp lim bi nga xam ne indi na ko ci jumtukaay moom su yokkul du yées. dinañ ko indiwaat te màggal gi tamit du benn du jour màggal gi kese c'est avant le màggal ak pendant la màggal et après le màggal si ay jumtukaay si wala wala si wàllu wàllu liggéey bi dinañ si def euh, ay opération de sécurisation de grande envergure yi nga xam ne dinañ si lëkkaloo suñu naataangoo gendarme yi pour fexe ba nit ñi. am kaaraange si wàllu màggal gi lu jiitu loolu sax am na ay opération yoo xam ne mi ngi am si jamono bi ñu toll mais xam ne jamono bu xaw a la si askan wi si wàllu kaaraange mais police ak gendarmerie sax je l'ai dit ñu ngi def seen képp lay kàttan ba nga xam ni mu ngi occupé le terrain foofu rek ngeen baal ma di ñaaxaat askan wi si maanaam ñu nekk nit ñoo xam ne ñu gisee lu xam ne lu dayu seen xel la rek ñu jokkoo ak service police yi ak service gendarmerie c'est ce qu'on appelle une participation citoyenne à la sécurité ay bërëb la yoo xam ni moom la ñuy wax ñun si ñun si suñu jargon des zones criminogènes yoo xam ne ay xale dañuy fay nekk di def ay defi ñaawteef loolu tamit bu amee si ab dëkk il faut que nit ñi tax seetlu xool yan matukaay lañ siy jël si biir matukaay yooyu noonu jëloon nañ fi ay opération yoo xam ne dañ ko doon def c'est des de sécurisation yoo xam ne police dafay def ay descente descente musculée jàpp ay gone yóbbu ci commissariat yi peut-être mu defee leen wala mu ne mais jàpp nañu loolu tamit nekkul solution bi nga xam ne mooy bi gën bi gën bi nga xam ne moom la ñu discuté woon waxtaan ko ak kilifa yi mooy def foofu benn poste avancé ci bërëb yooyu ngeen tudd ba nga xam ni day nekk une occupation permanente police dafay nekk saa su nekk loolu daal yaakaar nañu bu ñu ko defee dinañu dimbale si loolu te bërëb yooyu noonu mel ni gaar xale yi fa nekk tamit parfois damay wax ne ay victimes leen parce que dañu dem ba nekk sous le coup de ay dorog la ñuy def ak yeneen ak yeneen donc ñooñu dañu matu ñu taxawu leen taxaw bi mooy la ñu jéem a xool nu ñu wutee centre boo xam ne dina fi nekk dimbale ndaw yooyu noonu mais du question dañuy jàpp rek yóbbu leen bu ñu nekkee police ba seen diiru garde à vue jeex soit ñu defee leen soit ñu relaxé leen ñu delluwaat seen la ñu nekkoon loolu du solution solution mooy ñu jéema xool ay solution yoo xam ne c'est ba nga xam ni tey problème mu sécurité si bërëb yooyu ngeen tudd mun fay dakk te loolu lu koy dakkal mooy ñu occupé terrain bi wut foofu ay poste avancé mais aussi bërëb yooyu noonu ñu jéem ko defar defayin goo xam ni dina méngoog méngoon boo xam ne nit ñi dina si mën a nekk